mbokk yi lii si appuyage bi la amee léegi benn oto la buy tàkk ba jeex waaye gis gisuñu kenn ku koy fay appuyage bi nga xam si moom mooy pont bi nga xam si ni moo jën Fass Mbaw pont boobu la actuellement nii benn Peugeot la Peugeot la 406 mais nag euh, lépp loo xam ci ni am na ci danañ leen wan borom yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan leeral TV leeral point net gis ngeen oto baa ngi noonu di tàkk bi mu dalee tàkk yàgg na waaye gisaguñ saafara bu ci am waaw gisaguñ ko pont bi tiim euh, fi nga xam ne moom mooy Fass Mbao jàpp euh, camp Elgin mbaaw waaw appuyage bi foofu la gis ngeen oto bi mu ngi tàkk fi mu nekk nii essence bi mënu ma leen wan carrément plaque bi ndax foofu mënu ma faa jege ndax tàkk-tàkk bi muy tàkk métti na lool lool yéen ñiy seetaan Leral TV ak Leral point ñu bàyyi leen ngeen euh, dund lii nga xam si mettit la ñuy ñaan boromam mi yor oto bi wax dëgg yàlla te yàlla sunu borom def li gën yàlla na am yeneen i oto yu ëpp yi waaw leen wan boromam nag bu fekkee mën na wax mu wax mu ngi tàkk ba léegi si voie bi nga xam si ni yow miy jógee Tëngéej Rufisque pour jëm Dakar ci voie boobu la yow nga xam ne yaa ngi jógee Rufisque euh, di dem Dakar ci boobu la waaye waa appuyage bi tamit ñoom ñëw nañ mais gisaguñ ba léegi sapporam euh, lii moom bu ko waaye di fay tamit xam naa jeex na quoi ndaxte oto bi jeex après dinañ leen wan borom oto bi fekkee ba tey mën na wax ci Leral bi wax ak askan wi ñu laaj ko lan moo waral lakk-lakk bi tamit dinañ ko laaj mais en tout cas daal oto baa ngi lakk mu ngi lakk carrément carrément carrément. waaw ñuy jéggi nañu moytu ndax ndaxte appuyage la ñuy jéggi nañu moytu parce que appuyage la nañu moytu ndax appuyage la nañu moytu ndaxte appuyage la mën nañoo dem ba xaw a jege oto bi tuuti mais euh, lii rek ngeen ci mën a dund ah. waaw gis nga fi ma taxaw sax sore na mais tàngoor waa ngi jëm ci man waaw oto bi lakk ma jeex waaye nag yàlla def na amul benn lenn loo xam si ni ay gaañu gaañu la gisaguñ ko ci bopp waaw lu war a lakk-lakk bi mais euh, na trop yéen ñiy seetaan Leral TV saa su ne euh, lépp loo xam ne xew na ci dëkk bi information daw leen ngeen gaaw ngeen abonné Leral TV lépp loo xam si ne am na ci dëkk bi ak lépp loo xam si ne xew na dinañ leen ko saa su nii la ñuy dëkk ak yéen wax dëgg yàlla mais tamit di leen wan ñi bëgg nañ di leen wan leneen lu bokkul ak lii waaye tamit boo duggee chute bi nga fa dund leneen loo xam ne bokkul ak ñu lay wan nii ah gaaw leen gaaw ngeen abonné Leral TV. bi lan moo waral lakk-lakk bi. dafa maas. moo waral mu lakk. Ah. fan nga jóge woon. aéroport nga jóge woon jëlee ay clients jërëjëf. yaa moom oto bi wala moomoo ko. sa xarit moo ko moom woo nga ko. ban ban marque la. 405 Peugeot. 405 foo dëkk. Pikine.